ayca Alfi lan mooy mënu ndekki bi. ah Pape mënu bi riche na de. c'est quoi quoi quoi quoi quoi mën naa ko commencer nii rek xam nga xam nga bi ñu commencer sànq. maanaam euh, bi ñu bi ñu commencer yaa ngi gis ne jox nañ leen jox nañ leen ay quiche loxo jox nañ ay mini pizza yoo xamante ne moom la ñu moom la commencer ndekki. bu ñu jógee ci loolu maanaam salade froide yi nga xamante ne moom la Habib dressé mi ngi ne la ci ci table bi pa est-ce que je peux amener ça waaw ñëwal mais est-ce que dina fi xaj xanaa nga téye ko rek waaw waaw waaw nañ teg rek nga téye ko nañ teg rek oh. donc donc salade oh à la façon Darussalam c'est le c'est le lekk à la façon Darussalam à la façon Darussalam à la façon façon Darussalam pa donc juste il faut ñu fàttali tamit que que Habib sunu gan bi nga xamante ne Pape moo jógee ba Ndar muy euh, Habib Ka mhm. euh, mi ngi juddu benn pap euh, Pape mhm. jóge ba maanaam fi ñuy wax dëkk bi ñuy wax Ndar fa nga xam ne moom la fa la sancee li muy liggéey mais il faut rappeler que Habib jàng na lu toll ci juróomi at def formation boo xamante ne en restauration la ko def Pape jotoon na def 14 ans de d' expérience professionnelle mhm. notamment dem def benn stage boo xamante ne ma ngi ko defee Marseille donc moom dafa am benn amour bu mu am particulier ci lépp loo xamante ni moom mooy togg euh, bi mu demee euh, île du île du Saint-Louis euh, fa jàkkaarloo hôtel de la Poste mu ubbi fa li nga xamante ni mooy pâtisserie muy pâtisserie daaru daaru salaam moom nag ci pâtisserie lay gën a liggéey mais boo gisee lii amuuru liggéey moo koy joxe muy exceller ci salé di exceller ci yeneen yeneen lépp lépp moom léegi dafa décidé nag bi mu bi mu amee expérience professionnelle bi mu amee bi mu jotee def euh, expérience professionnelle dafa décidé ubbi propre compte am muy pâtisserie Daaru Salaam ci nga xam ne ci lay gën a épanouir lépp lu nit di lekk daf koy defar sucré salé traiteur lépp li ngay gis ci plat ci plat bi nee na moom moo ko moom moo koy defar xam nga yaa ngi fàttale bi ñu defee bi ñu defee euh, ndar décentralisé offrir nañu foofu ay teranga yoo xamante ne duñ duñ ko mën a lim donc Abiba ngi nii xam nga ñu naan tungu ne du teew ngay ngay ngay nataal dañ koy bàyyi mu gën a yokk ci liñ ko jot a présenté Pape la la la tam kii jàlloo la sant du mënu mënul kii mi ngi nii jàlloo la sant donc Habib euh, dalal ak jàmm ci plateau yeewu bi ñu bàyyi la nga sànni quelques kàddu ci. Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu seen auditeurs yi ak seen auditrices yi. di kontaan ci dalal bi ngeen ñu dalal fii ñun tam si TFM lu ñu yàgg a souhaité la. Mm-hmm. kan quand même xam naa ne kanam yu bëri miin nañ leen ci ci fii wala ci fële. parce que chaque fois bu ngeen déplacé woon dem feneen sax ñun danañu neex ñi dem fekk leen fa. donc su yàlla defee tawfiir ba ñu ñëw fii seet si leen ouvrir leen ndekki bi mm-hmm. jox leen ko seen ndekki seen cadeau. di kontaan seen liggéey yéen ànd ak euh, chef Tania. moom moo ngi spécialisé aussi cuisinier cuisine la gën a man man pâtisserie mooy sama domaine. moom moo bébé Amina. moom ñaari at la mais dafa xaw a njool doy tudd euh, ñu nuyuwaat encore maison mère pâtisserie Darou Salam c'est que yi ñu ngi en direct dañuy dañuy seetaan euh, Moussa Ka et toute la famille xam naa mënuma lim su ma limee damay jum mais ñun ñëpp ak euh, maître Abo Talib Guèye Issa Tandiou Goran Baye Guèye donc vraiment daal suñu tànk moo yoon ñëw si leen bégal leen seen xool sedd moo yoon suñu tànk li ñaan yàlla mu yokk bàyyi at at septania Euh, maa ngi nuyu tout le monde pratiquement à toute la clientèle de Saint-Louis ñëpp ñoo xamante ni ñoo ngi ñëw di ndekki si Daaru Salaam ñu fay añ si ñu fay reer si les clients fidèles tout le monde euh, juste pour dire que Daaru Salaam ne s'arrête pas à Saint-Louis euh, si jamais il des personnes yoo xamante ni soxla nañ partout bien sûr parce que on a des commandes waaw dañuy def ay commande gâteau soo wotee si fixe bi dañuy def ay gato anniversaire ay gâteau mariage dañuy def traiteur euh, cérémonie mariage yi ay réception on fait tout bien sûr ku nekk daka bëgg si mën nañ la ko defar livrer la ko sax boo bëggee voilà donc juste euh, on vous dit merci yéen aussi si accueil bi ngeen ñu offrir à que ñu mën a présenter suñu produit. et mais Habib Habib da ngay da ngay da nga ñuy jox adresse bi ak sa numéro téléphone pour ñi nga xamante ne dañu bëgg a passer commande am li nga xamante ne moom la jot a ndékkee. bien sûr pour adresse bi fixe bi c'est 33. 33 960. 960. 961 60 60 voilà 961 60 60 voilà et pour numéro Habib 613 87 76 là ils pourront faire leur commande comme ni ñu ko bëggee comme ça ñu satisfaire leen parce que priorité bi c'est juste euh, à ce que on satisfait la clientèle et que aussi client bu ñëw rek nga mën a dem avec une totale satisfaction ñun moom dem nañ fa ñun on est satisfait waaw voilà qualité bi fa nekk moom doy nañu moom doy nañu te kii xam nga ni Diallo la sant euh, fàtte ne kii taxawal nii rek ñu lay jël ñu lay jël sa yaay tere na la lekk plateau ngay lekk nii. parce que ñooñu ñu tikkeel Daaru ba ñu mën a déplacé wu ñëw fii. Ndeye Fatou Ka ak euh, sama ñaari bébé Ibrahima Ka Mariama Ka. di nuyu ñoom ñëpp. di santaan aussi population Saint-Louis. parce que ba ñu jógee fii fii la nekkoon Dakar. Mm-hmm. on a travaillé. presque partout à Dakar mhm. si hôtel yu mag yi restaurant yu mag yi mais dañu fa affecté comme liggéeykat en vingt 96 keneen doon beneen tubaab moo ñu jëloon di liggéeyloo foofu bu ñu fa liggéey 14 ans ñu xool quand même ñun en tant que sénégalais ñu royat loolu ci Youssou Ndour roy ñu ko pour mais pour jomam pour volonté pour mu dë bëgg dëkkam man lu ñu ndaw ndaw seize personnes yoo xam ne ñu ngi liggéeyal ñoom cette place te mooy demee noonu te yàlla ngi suturaal tam voilà donc donc Euh, ñi gën a mag ci wàllu cuisine ci Sénégal ba noppi itam nga yàgg nekk partenaire groupe Futur Média c'est-à-dire bu ñu demee ndar du ñu namm dara euh, grâce ak euh, Habib ñu ngi gërëm bu baax yow ak sa personnel gërëm waa Saint-Louis depuis matin bi ñu déggee ni da ngay ñëw ku ne yónnee nga message ñoom maa di dramé suñu kilifa yi ñëpp a kontaan ci yow mm. je pense que vous allez rester avec nous comme ça ñun ñu def ndekki en attendant ñu tëj partie bi et puis on se retrouve dans quelques pour supplément wu leen bi